may waaj. yow Saas tey man damaa kontaan sax <laughs> wala laa war a commencé mais tey bés bi ban yëg-yëg nga ci am ndax nga tudd Mouhamed jël sa doom tuddee ko ki nga xamante ni moo di dina Mouhamed. li ma waxoon rek laay waxaat yëg-yëg bi ma ci am mooy euh, defaluma yàlla lu tax bu doon njukkal am na man maay delloo yàlla njukkal ndax yonent bi fi mu gënee àdduna sori na muy Màkka bi mu génnee àdduna ci zahir ak léegi ay junni junni at dem na fi askan wi ma bokk yàlla boole ma ci ñi tagg yonent bi. yàlla yemu fa ba àdduna bi yëpp xam nañ ma ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama doon wax ni sama àdduna de tuddee yonent bi doom moo ma gënal dem Màkk tuddee yonent bi doom moo ma gënal dem Medinatul wara yàlla bi ma defalee àllarba talaa àllarba laa gént ma nekk ci kaw kaaba gi ci kaw a kaw toog naari di ma sànni ay buum alxames ñu yóbbu ko aljuma 19 heures ci heure bi net ci la am doom boobu maa ngi dawal jóge tele jëm euh, clinique Kazawus maire yónnee ma photo bi ne ma Aïcha am na doom bu góor dama dama miir ba dama seere taxaw lu yàgg yàgg yàgg ma zoom photo bi xool ko ni ni yenent bi ay li ma doon ñaan yàlla am nga tërandoo lii rek laa doon rêvé ma am doom boo xam ne tuddee naa la ko lijjantiwu ma mu gudd fan lijjantiwu ma mu gàtt fan lijjantiwu ma mu am lijjantiwu ma mu ñàkk li may li may li ma doon sagoo ci àdduna mooy ku tuddee yonent bi doom askan wi nga bokk sa wàllu baay di nga ci yóbbu 70 personnes aljana sa wàllu di nga ci yóbbu 70 personnes aljana sa soxna wàllu baayam dina ci yóbbu 70 personnes aljana 70 personnes ci wàllu ndayam aljana xam nga lu tax mooy koo tuddee doom mu pare la valise yàlla ni ko ku la bëgg ba tuddee la doom valise bi mooy seen rendez-vous yowmal xiyaam sama diggante ak moom du hasard man ak moom bisu juddu yonent bi la ñu xamante bisu juddu yonent bi kër gi dugg naa fi l'an 2000 bi papaam gaañoo boobu laa gën a nekk tout tànk xoolal boobu léegi mat na ñaar fukki at l'an 2000 laa dugg ci kër gi tuuru jàll 2002 laa fi dugg vingt ba 2022 21 nga nga takk fi soxna bi ma duggee première jour ci kër gi te amaguma soxna maire fee la toog ma nuyoo toog fii ñaari fan ñetti fan bi nu sëyee la ma maire ne yow de mus naa laa gis ci kër gi maanaam moom bisu alxames ci la ñu takk sëy bi dara du hasard yonent bi leer gi déparé ci way juróom wu góor dem ci way juróom wu jigéen guddi aljuma la yàlla boole ñu ñu am doom bisu aljuma yenn saa dama nan ko man duma koy bëttal parce que médecin bi li mu waxoon mooy doom ji 31 décembre lay judd man ma jàpp ni doom ji 31 décembre la judd doom ji juddu avant sax le 24 décembre mu bett ma lool ma ni ko ah, du ma bëtal de du ma def dara dañuy ngént mun ma ak ni ma mel man ko yonent bi jar na ko wallahi wal quran barki démb ma tëdd ba guddi gént borom daara ji mu may firiloo benn xasida bu mu way yonent bi may firi xasida bi bi ma yeewoo rek man yonent bi xam naa ni moom tur bi moo ko moom su ma ne ko ay solo xalaat mun ma lépp dina baax te yàlla seede na ni lépp baax na lépp maa ko defal sama bopp ku ma fi fekk danga ma cee fekk du mbindeef boo xamante ni jox nga ma lu ma jug dawe réeroowuma ci ak gor muy aram njaay mu baax mii nga xam ne lu may def rek dinaa ni ko aram loo xalaat mënu ma defal nangam aram loo xalaat mënu ma defal nangam moom rek mooy nit ku mën a ñaar sama loxo sant ma dara ci saa si ma dem def ko ñëwaat waaye du ma ko gërëm ndax àddoo dafa tëradi waaye ñaanal naa ko ñaan gi mooy bu ko neexoon mën naa see gisuma man sax ku ma gën a seer yàlla def na loolu kuy dox ci àdduna maa la gën a seer ndax yonent bi laa am kuy dox ci àdduna jàpp naa ne maa la gën ndax mën naa wax ci yonent bi lu tooyal xol waaye bu doon séntu teraanga ñun ñaar bu buñ doon dàqante duñ séenante ndax fi ma dëkk sori na de yëmbal laa dëkk ca banlieue ba moom mu dëkk biir dakaar maa ko njëkk dugal ci banlieue bi takk naa ko lu mat un mois deux mois yoo xam ne mu ngi ci appartement di ma xaar waxul du jàmbat ba ni mu amee doom waxuma ni lii laay sol bu ma nekk ay soloy sol dafa naan ma loo def baax na ba démb lay doog a gis couleur yére moom yi muy sol te man aram mi damay dànkaafu ci dëgg bu ma la bëggee wax dëgg boo doon sukuraat sax dinaa la ko wax nga yóbbaale ko bàmmeel mais ku ma jàppale la ku may comprendre la ku ma bëgg di may sakkanal xaalis la bu may wax ak moom ci dara danaan ma non nañu économiser rek nañu def nangam nañu def nangam jàppale ma te moom xam na ni musoo gis bàyyi bu am doom tey doom ji gën a la yaay ji doom ji muy doog am moo ma gënal kii téeméeri yoon ndax bu koy laal sax di ko foroote dama naan ko teggil sa loxo bul ko gaañ xooluma doom ji waaye yonent bi laay xool ci moom te li ma ko sant yëpp mu ngi ci kéem talaayal fi doylu yam yam na fa kéem talaayal lu may jàppale mu ngi koy def musuma fàttaliku ñun ñaar ñu discuter ci dara bu meree ci dara bu ma ñëwee jàkkaarloog moom bu ma koy xool muy ree ma ne ko ñàkk maa gis doo ngay xuloog man yam na fu ma ko yamloo lijjantiwul leneen loolu rek moo ma neex ci bis bi mooy li mu tudd ay sama tudd Mouhamed jël doom ji tuddee ko yonent bi. Euh, ñu gis à chaque instant man bu may waxtaan ak yow complicité bi nga xamante ni moom nga am sa diggante ñaari soxna yi mu doon loo xamante ni àdduna wërngal këpp dañ koy waxtaanee lan mooy secret oustaz Mouhamed Mbaye ba tey fu mu toog waxtaan sénégal yi bàyyi ko xel ci diggante mag ay ña ay soxnaam. mais aw ma secret yaay moo gën a gore ci àdduna yaay ñaata doom ñoo génne ci biiram. yaay bari na doom yu génne ci biiram kenn ku ci nekk man damay wax ni ku aaye rek da ngay wal sa moome tey moom moo aaye moom la yàlla jagleel bés bi maa ngi gëj a am doom 2012 muy Ahmada mag la sax léegi wàcc na alxuraan ma daan wax naan yàlla ah Ahmada sama sëriñ laa ko tuddee mooy ki tudd si tey te bi may tudd fekk na maa ngi ànd ak moom ay tournée bi ñu dugg Dakar sama jour ngénte 11h jot na. bi ñëwee ba Fass Mbao man ko sëñ bi bàyyil ma wàcc bàyyi la nga continuer Fass mënu ma du ma ko def Mouhamed yow boo xamee say mbokk du ñu xam ndax ñu ngi xaar nga tudd Ahmada mi une heure lañ ko tudd bi ñu yegsee ba ci tudd bi sëñ bi ma koo koy sama mag laaj ma koo koy tuddee ma am tur bu ma ko wax mënu ma tuddee ko sëriñ bi ndax goo mu yëg su nga fa koy faj ma tuddee ko ba pare ni yonent bi de jomb naa di ko tàggatu du ma ko tuddee doom déggoo ma ne loolu bés bu ma am ci àdduna bés bi moo ma ko gënal bu fekkonte ne dama ay milliards naa ko def ci bés bi démb ci guddi dama ne ko Aïcha xam naa ni moom boo may tudd ñu ndóol de mënuma bu ngeen tële passé lay gën a neex démb ci guddi dama koy ni quoi doo génn ministre Matar Ba mu ngi fii mu ne ma li ma sol baaxul Matar Ba ñëw gisee nañ démb mam góor jazaaka léegi dina ñëwaat Aminata Tall Sall doomam ñoo xamante ni tey jii mosoo leen amaana gis sa mbaax la ñuy dégg wala ñu xool benn estat ñu mel noonu di gaare parce que dama waxoon yàlla bu dee dinaa am doom di ko tuddee yonent bi duma ci xaar mbindeef parce que yàlla bindeewu ma mu mën a ñaan lu liggéey di maye dama ñaan yàlla am ko ci liggéey waaye duma ko ñaan nit waaye maa ngi koy jaajëfal bu baax fii mu ne bu ko teggiwul parce que man soxla ma ay soxna ku ma comprendre laa soxla parce que mission bi ma yor yonent mi moo ko moom te mu ma ciy jàppale mu ngi may comprendre mu ngi def lu ma neex ay sa bu ma nekkoon toogal ci photo yu ak koo doon ci àdduna nag laa wax muy mag muy rakk ak ñëpp bu ma ne ko toogal ci sées bële bu ma ko wanee naaw bu jugee ci sées bi man damaa egsiwaat boo ko rombee ni ko lu tax nga toog ci sées bi mun la Mouhamed Mbaye moo ne naa fi jarul may daw di sama bopp ci leneen parce que mate na ko mu ngi bëgg ma lekk mu ngi bëgg ma naan yàlla seede na ni du lekk du lekk du lekk ay sa du lekk dañuy xuloo ci loolu bu daanoo damay xuloo ak moom bu nekkee ci waañ bi dagg damay xuloo ak moom lan ngay def defal nànk xoolal li ngay def parce que lan bu sañoon li tubaab di wax superlatif loolu laay dund sama diggante ak moom déggoo leen li may wax de fii mu yeewoo fii mu yeewoo bu bëggoon milliardaire fii mu yeewoo milliardaire fekk ko fi bu bëggoon ay million bu bëggoon 4-4 bi ma koy bi ma koy takk bi ma koy xam mu ngi fayeeku salaire wallahi wal quran bu ëpp sama salaire man ñaari yoon bi ma koy xam daf fekk mu jël congé di liggéey di am xaalis ñu xamante liggéeyatul dañ daan toog nii munu ma ñu may woo de man ko incha allah di nga liggéeyaat di nga liggéeyaat di nga liggéeyaat di nga liggéeyaat boobu lay toog xaar ku tàmm téye xaalis fu mu daan téye ñaar fukk ma koy ma koy jàngal juróom laa koy jox nit da koy may xaalis mu jël xaalis bi teg ko ci benn pied ay fan bu ma ñëwee ko xaalis bi nag mun ma diw moo ma ko mayoon aram mi sama seede fan yu cuuraay la doon jaay yu def ci ay pot bi ma ñëwee ni ko waaye xaalis bi tegee ci kaw verre bi nag lan la mun ma mooy xaalis ma doon jaayee cuuraay ma ne ko doo ko jël mun ma lu ma koy doyee buñ ko joxee xaalis mu ne xaaral ma jënd ci nangam jàppale boobu mu ma jàppale aram lu ma wax ma ni ko lu ma am ci àdduna mu ngénte moom ma ko gënal bu nee ma doo ma jox nangam ma ko ay sax nga ngénte ma ko gënal boo ngéntee ba pare leneen loo bëgg mën naa ko mais tant que fi ma la génnee woon da delluwaatuñ fa nga ngénte ku ma am ñëw sama xol du sedd loolu la rek dañu génn ci biti. Aïcha un mot pour un un petit yow ko mi ngi jooy. dañuy génn ci biti. waaw noonu la. ñee jug <laughs> lii sa borom kër wax boo defoon le contraire dag ñuy jaaxal ndax say bàjjen sa yaay ak képp ku bokk ci sa askan rek muñ lañ la xameel yar ak teggin lañ la xameel bokk ak sa borom kër lañ la xameel jërëjëf mbay moo tax ma ne ko doom jandey de ko ko bañ sa yaay a baaxul waa man yi sama chéri li war ba sama kër mu rafet kon li Mouhamed wax ci moom yëpp dëgg la ndax fi mu ko jëlee fi mu ko indi bu fa nangoo toog rek kon bëgg ne ko nanga na koo muñal kon yàlla na Seydina Muhammad mi yóbbu leen Màkka ñoom ñaar na ba dee musul am lu ko naqadi ci ba keroog bu mu ñibbee wujjee boromam kon nag yal na leen yàlla jubale lu ngeen am yal na barkeel ci barke Muhammad sallallahu alayhi wasallam barke Serigne Babacar Sy. Mansour Mansour ku sopp sëriñ Babacar Si maam Xalifa Babacar Si def leen nii ngeen màggal maam Xalifa waaw mbay def leen nii ñu màggal maam Xalifa sama xalifa Babacar Si ate def leen ni ñu màggal mam xalifa waaw sëñ Babacar Si ni ñu màggal mam xalifa Babacar Si ate def leen ni ñu màggal mam xalifa loxo ca kaw Muhammad bayu Seydil Jamil Faas mooy xalifa sëñ Babacar maami Mansour Jamil mooy xalifa sëñ Babacar maami Ahmada maami Ndey Mareem xalifa sëñ Babacar maami Ahmada maami Ndey Mareem xalifa sëñ Babacar maami Ahmada maami Ndey Mareem xalifa waaw mami Ahmada mami Ndeye Marème Khalifa mami Ahmada mami Ndeye Marème Khalifa mooy baayu Cheikh Tidiane baayu Al Amin Khalifa baayu Cheikh Tidiane baayu Al Amin Khalifa Mohamed man sama turandoo sax turandoo mooy xalifa loxo ca kaw man sama turandoo turandoo mooy xalifa waaw sëñ Babacar sama turandoo man turandoo mooy xalifa sëñ Babacar si samedi ba samedi la daan wattu dàq fi raw fi yàggu fi yàqu fi mooy borom leen mam xalifa sëñ Babacar si samedi ba samedi la daan watu fi raw fi yàqu fi yàqu fi leeri maw ndeysaan sëñ Babacar ba samedi la daan watu dàq Jamil gàcce nga laama yaa ngi bay sawaar mbay gàcce nga alaama Muhammad mbay jamil gàcce nga alaama yaa ngi bay sawaar mbay gàcce nga alaama baayu Muhammad mbay gàcce nga alaama soxna Aïcha yaa ngi bay sawaar mbay gàcce nga alaama ndeysaan baayu Muhammad mbay gàcce nga laama mbay caaka yaa ngi bay sawaar mbay gàcce nga laama Muhammad mbay jamil gàcce nga laama yaa ngi bay sawaar mbay gàcce nga laama Muhammad mbay jamil gàcce nga alaama waaw waaw Cheikh Sarr moo ngi bay sawaar mbay gàcce nga alaama Mouhamed Mbay Jamil gàcce nga alaama sama sang yaa ngi bay sawaar mbay gàcce nga alaama yaay baayu Mouhamed Mbay gàcce nga alaama sama waaji yaa ngi bay sawaar mbay gàcce nga alaama Mouhamed Mbaye Jamil Mbaye gàcce nga laama wax leen yaa ngi bay sa waar Mbaye gàcce nga laama loxo ca kaw Mouhamed Mbaye Jamil gàcce nga laama Mbaye Jamil yaa ngi bay sa waar Mbaye gàcce nga laama baayu Mouhamed Mbaye gàcce nga laama yaa ngi bay sa waar Mbaye gàcce nga laama muhammad tudde muhammad yow nga alaama loxo ca kaw yaa ngi bay sawaar mbay gàcce nga alaama tuddu muhammad tudde muhammad yow nga alaama ay waay yaa ngi bay sawaar mbay gàcce nga alaama yaay Aïcha muhammad mbay jamil gàcce nga alaama chéri Aïcha mbay yow gàcce nga alaama Muhammed Mbay Jamil a nga laama yaa ngi mbay sawar mbay gàcce nga laama lii nga Alxaaji Mansour boorobal xawmi wax leen Mamadu Mansour Alxaaji Mansour mooy baayu sëñ Mbay